li ci gën a fës eh, caat eh, fu malaat ak Aliou Sané ak ñeneen ñu bokk ci ñoo lànk ñu jàpp leen dem ba yóbbu leen commissariat central bu Dakar eh, dañoo waroon ci mbedd yi di joxe flyers di ay affiche ngir wane sa ñàkk ànd ci yokku njëgu courant bi muy kàddu yi Xavier Diatta ci livre bi mu génn tuddee ko Casamance les geôles du mensonge nee na kuréel fippuy Casamance yi MFDC am na xaalis bu doy ci la ñuy jëndi ngànnaay ak di jëli nit mu xam ne MFDC ci wax yi Casamance yi ci leen nag jëlee koppar mbootaay gi ëmb waajuru ndongo yi di fédération nationale de parents d'élèves du Sénégal am ci tànge lool ci atum mi ñuy woo nguur gi ak jàngalekat yi ñu jiital waxtaan seen diggante dañu jeexaleeg tàggat yaram li sport weekend ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne mu nekk li gën a fas ci xibaar yi ne leen ci ay faram-faram. Abdou Thiam moo nekk ci machine bi mbokk ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak lakk gu am mbik ci Daaru Minam di dëkk bu nekk ci diwaanu euh, Tamba euh, ci commune bu Payar nee na nag yàqu-yàqu yi bëri na ndaxte lu toll ci juróom-ñeenti néegu ñax daal nay tàkk ba jeex ñi nga xam te ne yàqule ne nag seen lépp dem na tax ñu woote wàllu jëmale ko ci kilifa yi Moussa Omar Gueye ci dëkk bi ñu naan Daaru Minam nekk ci commune bu Payar daanaka lu toll ci ñaari kër yu mag ñu xayma lu toll ci juróom-ñeenti néeku ñax lakk nañ fa waaye itim ba tey li ñu bayoon ba góob ko ci wàllum gerte ak ci wàllum dugub ak mboq ak itim leneen loo xam ne dafa aju ci wàllum ngooñ bi nga xam ne dañ ko jëloon ba def ko ci ay saaku mu nekk nag li nga xam ni jaaxal na lool askan wi yeewoo ci dëkk biñ naan daaru minam li nga xam ni ñoom ñooy way sapeur pompier yi nekk ci kuppantum ñoom ñoo def lu ëpp juróom fukki kilomètre dikk nag ngir fay waaye lakk boobule waaye nag bu ñu seetloo ci jamono ji nga xam ni lakk bi am na nekk na ci jamono ji nga xam ni itam dafa tombeek jamonoy sedd mu ànd ak ngelaw loo xam ni saa su ne jamono ji bu dikkee bu fekkente ni fàggandiku ñu ba lépp lu jëm ci wàllum ñax yi nga xam ne dañu wër kër yi ñu daal di koy gupp daal di koy setal lu bëri ci daay yi nga xam ne dafay dikk dafay indi ay loraange ñeel ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi ak askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ci dëkku kaw yi ci noonu nag ki nga xam ne moom mooy Talla Sow maire bu Payar di yooxu wàllu jëmale ko ci nguur gi ngir ñu jàppale ñi nga xam ni Daaru Minam nekk ci commune bu Payar ci département bu Koupantoum Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média ak RFM kumpa jeex wéy ci xibaar yi wax ci ñu bokk ci ñoo lànk di ñi xeex euh, yokk courant bi ñenn ci ñoom euh, ñu teg leen loxo démb ba léegi bokk na nag Thiat euh, Cheikhou Camara naka noonu tam ñoom Aliou Sané ñoom nag danañ jàpp dañ jamono joo xam ne ñu nga woon ci rond point di joxe ay flyers maanaam ay affiche ngir wane sa ñàkk ànd ci njëgu courant bi ci loxo ñoom nag seen i ñooñ ni ànd ci xeex bi ne loolu leen tax dellu gannaaw danañ jéem a xoqatal waaye tey leen gën a dogg ci xeex bi Daouda Gueye bokk ci ñoo lànk ci jokkoom ak seen Nourou Ba. ñun nag waa non lank ak askanu Sénégal yi nga xam moom lañ ànd ci xeex bi euh, ñeel lii di yokk njëgu mbëj bi euh, ñuy wax ni kat ah, lii nii ay xoppatal la ay xorñooñal yoo xamante ni moom la nguur gi euh, Macky Sall ak nguuram jël def ko muy tont ci li nga xam moom lañuy laaj te laaj boo xamante ni mu tege lu jaadu la ne ah, li nga xamante ni mooy yokk njëgu mbëj bi nekk loo xamante ni ñun dañoo taxaw ne kenn du yokk waaye ñun dañoo am ay firnde ay njanc ay argument yoo xamante ni ñu ngi ko doxee ci ab ngaara maanaam euh, document boo xam ne ñu ko tuddee mémorandum tam war a génn ci fan yi ndaxte ñu ngi ci njeexitalu liggéey bi pour wane ni kat li nga xamante ni ñun moom lañ taxaw ne duñ nangu yokk njëgu bëj bi bañuñu rek pour lànk dañoo bañ am suñu ko teg bëgg a wax euh, euh, kii di caytu gi maanaam gouvernement bi fii lañ ko teg loolu nag moom moo tax ñoom yaakaar ne lii ñuy def nii di ñu xoqatal ak di ñu xor ñu ñel di jàpp suñuy ñooñ dana tax ñu teggi suñu tànk dellu ci xeex bi réere mbir mi kat lii chefu askan bi yëpp la te gën a takku te que lii def yëpp dafa gën a ñoo yokk rek xadar gën a yokk xanaa ak amu maanaam engagement ñeel li nga xamante ni moo cheikh bi ñu cheikh ngir nguur gi delluwaat ginnaaw ci dogal bi mu jël ñeel yokk njëgu mbaj bi mu nekkoon euh, Daouda Gueye bokk ci kan euh, kuréel gi di xeex yokku courant bi di ñoo lànk MFDC di kuréel fippu Casamance yi am na xaalis euh, ba doyal loolu nag Xavier Diatta moo ko xam ne moom nee na fippu Casamance yi si la ñuy sax fay seen i officier ak sous-officier ay koppar yu takk weer wu ne ci la ñuy tamit jënd ngànnaay moom nag nee na koppar yooyu mi ngi tukkee ci exploitation lii di waxu Casamance yi ak tamit la fay Euh, tukkee euh, ci la ñuy jëlee xaalis démb nag le Xavier Diatta euh, doon nag présenté livre am boobu mu tuddee Casamance les geôles du mensonge te woon na fa Lamine Ba. ci ab téere bi nga xam Casamance les gens du mensonge Xavier Diatta ay révélation yu bëri nga bind lettre personnage principal bu ci livre bi mooy crise Casamance. ci kàddu yi nga page 197 jëm ci kanam Xavier Diatta di ci xamle ne économie bi nga mouvement des forces démocratiques Casamance lay faral di gën a jëfandikoo na sax 2012 ba braquage a baax ji ñoo ko war a ndamoo waaye daf fekk rek ne ñi nga xam ne ñoo di faction MFDC yi jamono ji ñu ngay amee bu baax a baax li nga xam ne moom la ñuy dundee ci li jëm ci wàllu bonne santé financière boobee nga xam ne Xavier Diatta moo ngi koy tudd donte sax nee na mbir mi wóoru ko bu baax a baax MFDC moo ngi fay ay officiers lu toll si 400 000 francs sous officiers yi 250 000 ñi nga xam ne ñoo di soldats ak hommes de rang yi ñu ngay amee 150 000 francs CFA nee na nag jamono ji ci beneen wàll MFDC ma ngi yëngatu bu baax a baax ci li jëm ci ay activités diplomatiques am nee octobre 2017 mouvement bi yëkkati na ab délégation bu dem fekkee proclamation d'indépendance bi ci Catalogne ci biir Casamance les joies du mensonge Xavier Diata di si waxlu personnage principal mo ngi xam le sax MFDC amna ay bëre bi nga xam yor nako mën nañ fa faj ay nit paj wi nga xam mën na gën sax bëre fajukaay yi nga xam nguur gi moko taxawal bu muy waxtane chapitre bi nga xam mom la jagle ressources humaines et matérielles nee MFDC diggante 2012 ak 2017 danaka ëpp na junni doomu adamay nga xam recruter nañ leen ñeneen ñi sax ñu ngi leen di jëlé ci ñi nga xam ne ngi ak Yaya Jammeh waaye ñu tas ci biir rébellion bi buñ fi jëlee Yaya Jammeh ba léegi Papa Pascal mi di personnage principal bi nekk ci livre bi di Casamance les joies du mensonge nga xam ne Xavier Diatta moo ko bind moo ngi ci xamle ne rébellion Casamance jamono ji am na ay armes légères yi nga xam ne ñu ngay jógee ko Russie Israël Iran ba ci Chine bu ci mujjee sax nemmeeku nañ ci France Casamance les joies du mensonge ñoo ngi ko doon présenté public bi samedi bi ci kanam ay invités yu bëri Lamine Ba moom Xavier Diatta nee na nag euh, wóor na ko ne jamono ji waa MFDC euh, jàmm rek la ñu bëgg ndaxte doyal nañu ci xeex euh, foofu am ci diwaan ga tax nag muy sàkk ci nguur gi daal mu fexe ba ni ñuy fexe ba jàmm ji sax daal dellu si foofu la ca diwaanu Casamance ñu déglu Xavier Diatta. 40 ans dafa dafa Si on xolé bu baax li ma li ma wax ci sama exposé. bo bu baax. dem. dem clivage entre le nord et le sud. dem y a toujours des problèmes entre le nord et le sud. mais ñun. fuñu fuñu fuñu raway fuñu c'est parce que suñu suñu crise bi voilà 40 ans qu'on n'arrive pas à sortir de la crise Le moins exceptionnel... exception bi. dama dama bu wax que. pendant 40 ans. nga dëkk ci condition yu ñuy war waaye respecté leen du caageen ne dama ànda ak ñoom seen xalaat loolu laa bëgg ki nit ñi comprendre kon léegi pour ñu fay affaire bi il faudrait peut-être que ñun ñu trouver moyen ñu sensibiliser ñu xam ne ñoom lu ñu bëggoon ca njëlbeen ba amatul c'est déjà dépassé il faudrait ñu jox ñu ñu gis naka lañ leen di génne ci àll bi sans pour autant que ñu kii parce que il faut vous dire que c'est des gens yoo xamante qui avaient fait des promesses au peuple d'affaires hein. dafa am lu ñuy digoon euh, askan bi ba je crois que man ci sama yaakaar sama wàllu bopp dama foog ne ñooñu xam nañ ne loolu mënul nekk waaye fu mu nekk nii nañu fi mu nekk di euh, Xavier Diatta moom nag benn téere jàkkale ko ay am ci Casamance di Casamance les geôles du mensonge démb la ko doon fësal kon fii ci Ndakaaru huit heures tegal juróom-ñetti minutes. RFM, Radio Ascari wax ci leneen jëm ci wàllum njàng mi ak eh, syndicat jàngalekat yi eh, di waa G20 ak G7 yi dànkaafoo yëngu-yëngal tàmmali sax di yëngu-yëngal eh, loolu nag ñu sàkk ci nguur gi musaafara seen i tawat daal di jëfe la ñu xaatimoon tax nag ba ñi nga xam te ne ñooy fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal nekk ci njàqare ñoom li ñu bëgg daal mooy ñu jiital waxtaan su ko defee déggoo mën a am seen diggante Bakary Badiane président fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal ci jokkoom ak Salif Sow Nous ne parlons def nañu lu mën le haut conseil woote na fii réunion asali ñu dem fa ñu ne pour préparer la rentrée ministre de l'éducation nationale woote na moom itam ñu def près d'une semaine le lieu pour préparer la rentrée ñoom syndicalistes yi toog nañu ak Thiès ñu préparer des points sur lesquels eh bien on devait discuter à asali Le lieu pour que ñu am une année apaisée ñëpp yaakaar ne de toutes les façons ren au moins dinañ am une année apaisée mais liñ di gis aujourd'hui mooy lan fekkee ne G7 a ngi bëgg a dem en grève G20 mu ngi bëgg a dem en grève mais qu'est-ce qui va se faire c'est tous les syndicats qui vont aller en grève ci lan sur quoi ñu yaakaar ne G7 itam bu fekkee ne ñu ngi négocier avec l'État waay waay waay waay waay ñu teg armée de côté ñu xaar en attendant fu ñuy mujjee après présent amul refus de dialogue foog naa ni ñu ngi négocier ba léegi pas plus hier G7 bi ministre de la fonction publique recevoir na leen xaw ma lan n'ont pas été conviés à ça

buñ sañoon grève ba ñam di kaddu yi Bakary Badiane jiite mbootaay gemb waajuru ndongo yu Sénégal yi des sax ci njàng mi wax nag ci professeur boo xam te ne ko agressé ca sem bu Bukot ca diwaanu Oussouye ca diwaanu Ziguinchor moom nag professeur boobu daal ay élève ak waajuru élève ñoo ko daal dal ci kawam ba mu jël ci gaañu-gaañu bët ba nag daal di ñu gaañ ko ci bëtam tax nag ñu samp laaj jëm ci jëflante diggante jàngalekat yi ak yi gis ne fi mu toll cër ba amoon amatul élèves yi nag euh, daanaka joxtuñ cër seen i jàngalekat euh, naka noonu tam seen i waajuru ndongo yi ñoom tamit euh, des suñu gannaaw ci mbir moomu njëglu si gëstu Saliou Sow jàppante bu ñuy seetlu léeg-léeg ci diggante jàngalekat yi ak ñi ñuy jàngal bokk na ci taxawaayu ñay jàngale maanaam ñoom dañoo dem ba ndongo yi sóoratuñu leen ci lu ñuy def loolu la njiitu kuréel gu ëmb waajuru ndongo yi wax Bakary Badiane ñun bu jëkk moom maître moom monsieur lañ koy wax dañ koy ragal dañ ko ragal waaye léegi léegi léegi lu ma gis doy na waar daal diggante élèves ak seen professeurs yi élèves ak seen maîtres yi. bu élèves yi demee bay fitnaal ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di jàngal di def seen bopp yi la xam-xam njàng mi ak njàngale mi rek moom moo ciy sooxe noonu la syndicaliste yëpp gisee ñoom ñoom ñooy taxaw di kaasal ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàngalekat yi ci gis-gisu Dame mi nga xamante ni moom moo jiite G20 na gu dénk wàllum njàng meeg njàngale mi njaboote leen ñoom ñëpp moo war a taxaw taxawaay gu dëgër lii jóge fi weer wi ñu génn euh, am na cayam artère bu Louga ñu dóor fa jàngalekat ba gaañ ko tey jii tamit mu amaat ci département Oussouye Bokor Diembane ñu dóor euh, jàngalekat ñoom mi ngi mel ne tey bu ñu dóoroon ab policier ministre de l'intérieur day génn wax ne dóor nañ policier yi nañ bàyyi li ñuy def wala dinañ jël yi matuwaay dañoo bëgg ministre éducation nationale génn wax ak sénégalais yi wax lan la yaakaar ni moom la ñu war def pour que lii man fee jóge parce que jàngalekat dañ leen war a aar parce que seen liggéey mënuñ leen fee fekk di leen bundu xataal leen jaay doole tey sax bu ñu demee ba kay jàng di xeex ak ki koy jàngal war nañu def taxaw seetlu xool ndaxam école bi lañ fay jàngale jëm ci wàllum yar am na fa ak xale yi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw di sàkku si xam-xam taalibe gi war dinañ ko indaale ci daara yi loolu la Bakary Badiane wax it moom moo jiite kuréel gi ëmb way juru ndongo yi. il est vrai ñun ñun parents am ñu euh, part de responsabilité mooy l'éducation mais nag l'école aussi éduque école bi du former rek dafay éduquer mais bu fekkee ne day former ça bu ñu bëggee am njàng mu mucc ayib fañ koy defee di école yi le war nañoo lijjanti ba yar gi daal di fay sax ndongo yi respecté ñi nga xamante ni ñoo leen di jàngal jàngalekat yi it yem ci joxe cours dem ñibbi. Salif euh, saw euh, dem ba Tëngéej wax ci coow li yooyu ba léegi ci marché ban fara yeesalaat euh, di carré door marché bi kon yeesalaat ko waaye nag loolu jaaykat yi ba léegi ñu ànduñu ci nee nañu nag li ñu bëgg mooy te moo war a jiitu ñu utaleen fu ñu nekk ba noppi nag soog wax wala yeesalaat marché boobu tax nag ñoom nee nañ ànduñu ci projet boobu dem sa janoon nañ ci taskatu xibaar yi Abdou Diouf Diagne. Aujourd'hui, on a la possibilité de démarrer immédiatement si on dispose de l'assiette foncière. maire bu commune bu Rufisque Est génnee ginnaaw bi ñu leen joxe ab àpp juróom-benni weer ngir ñu daal wax ne waaw mbala déet bëgg nañ projet bii di carré d'or daal am ay fan rek daal di tegu mu mel ne commerçant yi ak Boubacar Albendo yi bokkuñu gis-gis Pape Ba mooy président bu marché central bu Tëngéej. wax ji mu wax wax na waxam waaye ñun ba léegi ñun tooguñu moom réy nit loolu bu ko waxee dafa wax rek mag nag buy wax te ay nit di ko déglu da li nga xam ni bu ëllëgee la dégloo nga xam ni li ngay wax am na a moom waxtaan ci problème si dérecasement wala problème fu ñu jëm. si lu soxal nag yóbbu leen ca marché bi ñu duppee marché Arafat commerçant yi ñoom lii la ñu xamle. loo xam ne man tegu ci bët lu ma ko gëm fu muy wax ak ak fu muy defee ak moom ñu man yéegu ko marché Arafat marché jën xaju fa te boo gisee tey tëngeej nu mu mel ci teer bi nga ne da indi benn embouteillage ci biir tëngeej boo jógee juuti bi munoo dox teer bi munoo dox ko tax a jóg di soppi xar kanamu ville bu Tëngéej rawatina marché central bi dafa mel ne nag ñi nga xam ne ñooy commerçant yi ak maire yi ba léegi déggooguñu ci RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne Abdou Diouf eh, Diagne eh, wax lu saxal wàllum wér gi yaram ak eh, ñi nga xamante ne ñoo ci yëngu ca diwaanu Podor ñoom nag bokk na li leen soxal ñu daal di yeggali liggéey bu opital bu Kaskas nga xamante ne 2005 ba léegi liggéey mënul fexe ba noppi ci geneen wàll tamit daal bëgg nañu wàllum jumtuwaay ak matériel ci bërëbu fajukaay yi ñu xam ne ko gannaaw bi ñu doon jot ab ambulance foofa ca diwaanu Podor ca association pour le développement de santé daal di ko fay def Mouhamed 대박. ay jéego lu ñu nemmeeku ci wàngu yaram ci salde tax ñoom ñu dalal benn ambulance bu leen seen ay partenaire indil maahi li di fàttali investissement yom solo jàpp jëm ci wàngu yaram ci bërëb bilee donc ambulance boo xam ne dañ ko indi mais ci euh, du continuer liggéey bu ñu dooroon depuis bu yàgg la boo seetloo si ñaari a yi paas indi woon nañ fi ay partenaires yoo xam ne dañu woon pour indi ay garab defaraat nañ centre sante bi donc lu ñu si waroon def yëpp defar nañ ko vraiment ba defar centre mu nekk centre santé bu bees bii lu si am benn ambulance bu ci dëkk yu nekk ci wet bi yëpp dinañ mën a vraiment bu ñu amee ay ñu feebar bu ñu amee ñu war a yóbbu hôpital ambulance bi ñëw jël leen à temps. moom mi jiite commission santé ci association développement de xam xamle jafe-jafe yi des ba léegi te askan wi yaakaar ñu tijji l'hôpital bu kaskas bi lee. am nañ am ambulance mais centre de santé yi dañu gis ni toujours ay jafe-jafe daf ciy am parce que souvent du ñu am garab wala am leen di manqué wala peut-être ay infirmiers chef poste la ñu am yoo xam ne mën plateau bi donc lu ñuy ñaax daal mooy hôpital de kaskas dañoo war a jeexal liggéey hôpital boo xam ne niveau bu relevé la dina tax ñu ëpp ñu am malade au lieu dem ba ay woroso yi wala dem ba njum yoo xam c'est à des centaines de kilomètres vraiment puisque Casca c'est à côté c'est à une dizaine de kilomètres euh, du centre ñu ñaan vraiment ñu leen di ñaax pour vraiment hôpital bi mu mën a jeex ñu mën ko inaugurer ci ci 2020 ñu fàttali ni rek ci île amophile bi ci département bu Podor ay yoon doon lu ñu xàll ci bërëb bi mu indi ngëneel ci dem ak dellu si askan wi RFM ci ndar géej Mohamed Nabi Sila Mohamed Nabi euh, Sila des ba léegi ci wàllum wér-garam ak euh, semi bi euh, découverte maladie universelle jëm nag nag eh, ci taxawalaay mutuelle de santé nit ñi dugg ci eh, mbër mi fi woon di Moustapha Guèye eh, moom nag lu toll ci junni carnet daal dina koy wutal ay mbër ak seeni njaboot loolu nag ngir ñu mën a faju ci anam mi mu gën a yombe mu daal di nag dugal loxoom ci lii di couverture maladie universelle démb lañ ko doon amal xew bi ci teewaay Mamadou Maba écrit yi ñu ngi ñëw ndànk moo ne de du combat moo fi am li fi xew mooy fexe ba junni mbër mën a faju ci njëg lu néew Moustapha Guèye. docteur bu ginnaaw bu la docteur bi xoolee ba càmbar la daf lay bindal ay garab garab yi tam boo boo demee ci pharmacie yi nga xamante ne mi ngi ci biir hôpital bi euh, di ko jënd daf lay dikkee rek état bi da lay jëlal li naan quatre pour cent yow nga fay vingt pour cent faj bi tamit noonu donc lu mel noonu nag oyofal paj la oyofal paj nag képp ku ko kuñ ko dékk fii Sénégal da nga sawar ci jël ko. Mamadou Sélili dig à partenariat ci agence CMU membre de jàpp ni yu mel ni dina tax couverture maladie universelle. campagne promotion bi campagne parrainage bi euh, dina tax nit programme couverture maladie universelle loo xamante ne Youssou Ndour ak Tafa Gueye ak ñeneen ñu ñu ràññee jàpp nañ ci dina susciter curiosité publique. sport ak blessure ñoo ànd moo tax CMU dina amal njëriñ mbër yi loolu di gis-gisu guy gi de bu écurie yëmbal mbooloo. waaw lii moom li ñu mën a jëriñee bari na parce que sport ku ci nekk xam sport ak blessure ñoo ànd sport ak blessure ñoo ànd kon tey jii bu ñu demee tey jii ba ñu proposé defal ñu ko tey jii daal moom sant yàlla daal. Gueye mi ñu Bordeaux Lac de Ama balde ak yeneen am am na yaakaar ñu inscrire seeni gox ci couverture maladie universelle RFM bitim réew. waaru bitim réew dañ koy doon lu soxal Libi ab ndaje bu mag bu ñu jagleel jàmm ca Libi di am tey jii ci réewum Allemagne ci njiitalu kuréel mbootaayu xeet yi ndaje bi nag di am jamono jo xam te ne nag euh, waxtaan doon amal ci Russie daf mujj lajj jëmoon nag ci xaatim euh, weeru ngànnaay yi diggante euh, ñoñ yu Fayez Fayez El Sarraj ak yu maréchal Haftar ci ndaje boobu nag dina fa teew ay kilifa réew yu. yu bëri loolu nag ngir fexe daal ba jàmm daal di am foofule ca réew réewum Libi xibaaru tàggat yaram sport weekend Cheikh Tidiane Diagne lañ ci àndal mbokk yi dale nag jàmm ci sport weekend dañu koy daldi di rek footballu jigéen ñi di U20 yi éliminatoire coupe du monde bi Sénégal nag niki samedi gi ma nga woon ca Bio ca Sierra Leone daal di fa am ndam benn bal ci dara diggante ak naataangoom yu Sierra Leone bitu Sénégal nag ci deuxième période bi lañ ko daldi di dugal 56e minute de jeu ka ko dugal nag moo di Fatou Bintou Touré dañuy daldi depuis sax sélectionneur bu Sénégal di Souleymane Diallo di rafetlu ndam bi nga xamante ni équipe bi daldi dina ko am. maa ngi gërëm d'abord euh, xale yi parce que yomb bu buñu doon ñëw fii dañ doon ñëw presque euh, xamuñu ñoon adversaire bi mais dañ joxoon consigne xale yi xale yi vraiment tey euh, góorgóorlu la ñu si respecté consigne bi parce que waxoon nañ ko dina yàgg lool donc il va falloir que ñu téye consigne yooyu ba match bi yëpp euh, jeex beneen bi mooy vraiment sur le plan physique teniroon nañ tenir nañ tamit donc loolu moo si ëppoon solo donc comme woon xamuñoon adversaire bi léegi xam nañu un peu adversaire bi xam naa dinañu waajalaat euh, bu baax a baax match retour pour xool effectivement lu ñu mën a def suñu kër incha allah bu si yàlla ñu fàttali nag match retour bi nañ ko daal di amal benn fan na ci weeru février euh, fii ni euh, ci Dakar ñu daal di enchaîner ba tey wàllu football waaye bi la yoon ak góor ñi ak championnat bu Sénégal Ligue 1 bi ñu ngi si sixième journée ci wàllu jongante nag jàppale ni Snaps excellence bu Thiès moom am na opération bu baax ndax ma nga woon ci dali biram ndaw daal di fa fekk génération foot daan ko benn bal ci dara gannaaw match googu nag ki nga xamante ni moo di Gaoussou Dramé di tàggat équipe bi di Snaps excellence bu Thiès daal na wone li nga xamante ni daal moo di mbégteem ñu déglu ko. may félicité samay xale te xam ni borom jom lañu góorgóorlu nañu li ñu leen santoon tam def nii looloo tax ndam li doom rëy ba pare ma jagleel ko nag yëpp ñëpp waa Thiès ndax ñun Thiès li ñuy représenté euh, suñu génnee jëm ba dëkk ci jàmbu football fa gañe ko dañuy sant yàlla di ci kontaan te tam ndam li li tax moom solo mooy dina tax suñuy xale xam ni ñoom waruñu am complexe football fenn képp ku ñu mën a dem rek waroon fa jëlee victoire euh, te tamit importance mooy ñu ngi ci juróom-benn lu ma si tey juróom ñëpp gañu ñu ci bon dinañu def ko équipe ba mu def tuuti

te loolu tam ñu ay moom moo di tàggat équipe bi di génération foot moom nag ab mbetteel daal di am ci gile jongante ba tax na daal mu ngay naqarlu defet bi waaye tawul ba tey dafa fas yéene jooyanti mbir yi laata muy yéex. donc a waaj lépp def nañ ko. terewul ñun ñuy duggee en tout cas man du ma entraîneur boo xam ni damay duggee parce que musuma duggee parce que xam naa ni maa ngi liggéey maa ngi ci yoon bi waaye nag la ca def résultat yàlla moo ko yor ñun ay jaam rek lañ ay jullit lañu ñuy liggéey di ñaan yàlla naam mayoon nañu sax defat lañu may donc tey yi laa gën a sant yàlla ci lii mu ma defal nii jafe-jafe yi di ko tàllal samay loxo di liggéeyaat di ko ñaan pour que jafe-jafe yi ñu nekk nii moom mi nga xam ne moom rek ñu ci nga jëm ñu jëm te man li ma gis ak sama yeneen naataango am tam ñaari fi nekk li ñu gis yëpp mooy père bi fubal tey eh, moo gën a nekk ay jàmm naam ci para défenseur mag la mais jàpp nañ ni bu waree dugg dina dugg min ci yoon bi ñi ngi liggéey ak moom pour ñu mën a duggee nag li ci des mooy ñu bañ a yàkkamte rek kon ne war liggéey ba résultat yi nga xam ne tey eh, équipe bi amoon na ko mu ko équipe bi ñu yor aussi euh, ay joueurs yu baax la ñu duñ si dute mukk te tamit football tamit nii la rek dafay am ay ay moment yu metti ak moment yoo xam ni euh, day neex dafay am sax ci yu mag yi tey jii boo xoolee bërki démb équipe bu mel ne Barcelone moo jël fee championnat bi ñu changé entraîneur te pourtant moo jël fee ndax benn defet bu mu am te loolu ak sport ñu ànd ah, ak sport ñu ànd donc ñu jàpp nañ ni ñu ci yoon bi naam même ñu li nga xam ne ñu liggéey même bu ñu matalewul lépp li ñuy def en tout cas ñu ngi bi dara changé wu ci xanaa li def nag ci loxo yàlla ne bu ko yàlla dindee rek moom mi nga xam ne moo ñu ko a euh, dina dëj stade de moom dafa fekk si jaraaf bu Dakar fii nii ci Ndakaaru daal ko daan ñetti ball ci benn gannaaw ndam loolu Cheikh Key mi nga xam te moom moo di tàggat équipe bi di stade de wane na mbégteem di rafetlu daal taxawaaye gunéem yi ñu déglu ko ci yaatal moom itam. ko liggéey waxoon ni bu ñëwee fii tey jaraaf moom ñu moom mooy recevoir terrain la boo xamante ni xam nañ terrain bu ndaw la kon défendre fi du jafe kon nañ def benn bloc médian boo

rek yàlla moo ñu daan xañ moo nu may tey tey moom yàlla moo ko daan may moo ko xañ tey kon lépp rek ñu delloo ko suñu borom bi ak tamit si liggéey mais door équipe bu toll na jaraaf lan lay def. waaw li muy def mooy xale yi waxoon na euh, euh, nga ko dooree liggéey nga ko dooree kon war nga mën a delloo Teungueth FC moom dafa gën a dëgëral taxawaayam ci bopp raw gàddu gi ndax dal dina amaat geneen ndam ca Saly la ko daal di amee ci digganteem ak génération foot ñaari bal ci benn bitu victoire bi sax ñu ngi ko dugal contre son camp la ci njeexitalu jogante gi.

17 li Linguère dana joué ak ñi di waa Guédiawaye football club jogante ko mujj nag ñeel ba tey juróom-benneelu bëccëg bu Ligue 1 bi altine 16 diggante Demba Diop FC ak ñi diwaa waa Renaissance bu Dakar lay dal di doon. ñu dal di tàmbalee wër championnat yi ca biti réew championnat ba Angleterre ñu ngi seen 23e journée Watford bi Ismaïla Sarr di wéy ba tey di joyanti li nga xamante ne daal moo di euh, place am ci lu jëm ci wàllu classement bi ndax ma ngay sori ba tey li nga xamante ne moo di zone rouge bi la ko waral moo di match nul bi nga xamante ne am na ko ca dëkkam diggante ma ko Tottenham yi féete si juróom-ñetteelu place bi Arsenal ak Sheffield United dañoo daal def match nul un but partout Brighton ak Aston Villa noonu itam Manchester City moom mën nañoo jàpp ne sax dafa lajjat donte dafa match nul ca dëkkam diggante ma Crystal Palace deux buts partout waaye ba tey ñu ngay wéy di nekk si ñaareel place passe bi Norwich daal di am ndam digganteem ak ñi di waa Bournemouth moom euh, Wolverhampton ak fekk ci dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci benn West United ak Everton dañoo daal di match nul la ko Newcastle daal di may li ci des ci wàllu jogante danañ amal ni gi ñu mën see bàyyi xel loolu jogante ko nar dox ci diggante Liverpool ak Manchester United Liverpool féetee ci bopp daw gàddu gi match bi ci bu 16 lañ koy daal di amal ni ak Leicester mi signé signé le place mi classement euh, lii di première ligue euh, championnat bu Angleterre. Espagne ñu ngi seen euh, journée Real Madrid jamono gi mom mo nek gum ci pro gi la ko waral nak mo dafa am ndam ak FC Séville ñaari bal ci ben ñaari but ko ko di Brésil bi di Casemiro fi mu toll ñetti Real Madrid rawé gum ñi di wa Barcelone mi nga xam gi 20h ak Granada lay Yenen di yenen jongante Alaves Mom, dafa fekki Levante ci dëkkam daldi ka daan bal ci dara Osasuna ak def match nul 0 euh, but euh, partout Série A mode championnat bu Italie ñoom ñi ngi seen 20e journée ci wàllu jongante Lazio bu Rome dafa daal di am ndam Sampdoria bu 5 buts à 1 Sassolo dafa daal di daan Torino ñaari bal ci benn la ci des nag ci jongante da nga daal di niki dimanche gi 19h45 Juventus de Turin féete ci bopp raw gàddu gi dana dala ñi di waa Parme Juventus nag moom ñaari poñ daal di dox ci Inter de Milan féete si ñaareelu place bi Inter de Milan mom niki tey euh, dimanche gi dana tas ak ñi di Lecce si bu 14h là, tout le monde, 11h30 Milan AC dans la ak Udinese AS moom dana fekk Bologne ca dëkkam ci bu 14h jotee Cagliari euh, digganteem ak Brescia lay daal di doon ñu daal di ko jeexalee ak championnat bu Allemagne ñu ngi seen 17e journée waaye jàppale ni ka ca nag moo di Haaland mi nga xamante ni moo di recrue bu bees bu Dortmund moom nag comme dugal lañ ko sant jot naa dugal ñetti bit ci ndorteelam ndax dafa daal di dugg sax ci li nga xamante ni moo di euh, remplaçant laata nag muy génn si la jot a dugal ñetti bit yi nga xamante ni dafa mujj permettre Dortmund am ndam ci digganteem ak Augsbourg juróomi bal ci ñett jàppale nag Dortmund ba tey ma ngay wéy nekk si ñeenteelu place bi Bayern Munich moom dana joué dimanche euh, si bu jotee ñii di waa Hertha Berlin ci wàllu euh, résultat itam ñeel ba tey lii di championnat bu Allemagne Düsseldorf dafa ñàkk ci digganteem ak Werder Bremen Cologne dal na am ndam digganteem ak Wolfsburg euh, ñetti bal ci benn Mayence moom ñii di waa ñoo ko fekk seen dëkk daal leen daan ñaari bal ci benn noonu itam la Frankfurt daal def ci digganteem ak Offenheim ñaari bal Radio Futur Média.